nga nekkoon ci tali bi am ko wàcc te xam ne fii mooy la route ay piste la ak ay sentier man je continue la route je ne suis pas descendu de la route sur mes règles donc sur ce point précis mm-hmm. j'ai le droit d'aller que d'accord tout c'est de gérer le pays. nga xamante ne ni euh, accusation joxoon na seen diggante ngeen di guerre par presse interposée. voilà loolu précision ma ciy indi c'est simple bu fekkoon ne am na lu ma ragal du ma la justice c'est moi qui ai la justice. mais tey ñun ñëpp nous sommes ba mu ma saisir explicitation ba mu ma saisir la justice. moo am quatre renvois. dans cette affaire yoo xam ne maa ko demandé demandé wu ma benn renvoi bés bu saa yu ñu wooyee maa ngi ñëw taxaw. dem na ba à un moment donné sama frère Barthélémy Diaz bi nga xam ne moo doon tenir ces propos là y compris devant vous ici. Mm-hmm. se rend dañ ko trompé. parce que ñu nekkoon ci ginnaaw. kan si ñan. je ne suis pas dans ça man maa ngi ci ay affaire étatique aujourd'hui je ne suis pas dans les détails dañ ko trompé parce que documents yooyu mu doon wut c' pas des des rapports financiers c' était des rapports d' exécution du budget. Hmm. yéen mos waroon ko woon ne ko ma xool. il s' est compte il a des avocats comme Demba Ciré Bathily. Hmm. bon mu xoolee xam na ni non. mais une erreur une erreur on corrige. comme yow yaa nekk sa dëgg est ce woon xaar yoon ba mu setal la su ko defee ñu xam ni effectivement li nga wax ni moom. mais kooku c'est le choix de certains man je respecte les gens qui parlent dama ne Sénégal bariwul lu may tooñ de bari na lu may répliquer mais baale ci réew mi la bokk su fekkee notre culture. boo ko defee lan lay waxati parce que fii loo def ñu wax. mais ay donc c'est des accusations. bu koy accuser xam ni il est dans l'erreur bu nit baalu jégg man j'arrête là. mais mais maître lu ñu bëgg a xam mooy euh, euh, dañu la dàq Dakar dem dikk c'est-à-dire que mer ngemb boobu ñu lay jiiñ ta ne ñenn ñi ñu ngi la koy wax est-ce que du moo am parce que gis nañu ñoo xam ne dañu leen démettre de leur fonction et ils restent quand même dans la paire wala coalition Benno Bokk Yaakaar mën nañ ci jël Matar Cissé Amadou Ba euh, ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye. Hmm. keneen ak keneen mais yow. da nga wax li nga fi wax fii ci sunu plateau seen show jëm ci troisième mandat quelques jours après ñu dindi sa nombal tànk après yow it nga commencé di di opposer ouvertement. je ne pas commencé à m'opposer j'ai dit il a une période d'observation. Mhm. tey laa lay wax ne je suis dans l'opposition c'est la première fois que je le dis. Mhm. gis nga euh, ñii nga cité. mais actes nga doon mën a yëpp. nga cité ñii nga cité. d'anciens ministres. de haute personnalité que je respecte. Mhm. bu ñu gisante ndeysaan on se connaît très bien. Mhm. on n'a pas la même personnalité. ah oui oui. lan moo leen di différencier. ah mais mais bu fekkee ne ñoom lu leen président Macky def neex na leen sur le plan politique man c'est pas mon cas. mais ki la am ci yow confiance jox la ko xëy suba teel dindi confiance boobu est-ce que war na indi euh, peut-être nga dem din jóge ci parti bi parti bi lenn la poste bi leneen la wala wala boog. beneen beneen beneen kii conviction nga am ci loolu. beneen vision nga ci am yow. man j'étais à l'aise et j'ai toujours été à l'aise di défendre le bilan du président Macky Sall au septennat ñëpp xam nañ ko. te bu ma toogee défendre personne ne peut me sortir loo xam ni il va me mettre en mal devant les peuples sénégalais te maa wax sénégalais yi ñu ngi mais depuis que le deuxième mandat et dernier mandat a commencé je ne reconnais plus mon président de la République sur le plan politique et je l'ai dit <laughs> je vous donne un exemple très simple gis nga kilifa bu jógee am ay doomam ne leen bu leen wax ci lii nous sommes en février 2019 hmm. ñëpp ñu tekk bu fekk waxul ni ngeen ci waxee nii wala bu leen ci waxee nii dafa ne bu ci kenn wax. ñëpp a war a respecté. mais ñenn ñi nommés par décret comme moi sont sortis. bu ñu waxee loo xam ne ça arrange le président de la république ci durée mandat bi si pas durée bi si nombre de mandat bi mu ne leen eskay wala mu ne dégguma ñeneen ñi bu ñu nee attention la parole donnée les textes précis la lettre de la constitution mais l'esprit lu taxoon ñuy xeex bi ñoom Mamadou Diop fa Mamadou Diop ak ñoom Bara Ndiaye Défi mhm. ñu ne ma yow li ngay wax neexuma génnal ñëpp la waroon rëq seen digg ñëpp ou bien mu bàyyi ñëpp c'est la raison c'est la seule raison non non c'est la seule c'est l'une des raisons bien raison boo xam ne moi je ne reconnais plus mon président gis nga nee na lu ñu ñu bokk di nga koy pencoo mhm. boobu ñu ko namee la première mesure que j'ai constatée c'est de naan le Sénégal maintenant c'est moi monsieur Boun Abdallah Dionne soxlatuma la suppression du poste de premier ministre. oui parce que lu xew tey mooy wàcc bëre. te moom dafa war a nekk au-dessus la mêlée. su ñu l'État mu ni man la su ne nee administration mu ni man la ça c'est pas comme ça que fonctionne un État. troisième chose des choses se sont passées ici graves février mars xam Sénégal. bu ko musul kii dama gëj ne ko dégg ñu gis su mel noonu. Hmm. maa ngi fii. mooy ñu gis loo xam ni parce que man sama waxu daaw. Hmm. sama waxu ren ak sama comportement demain kenn mënuma vaar ci loolu. je l'ai dit et je défie quiconque depuis que je fais la politique. Hmm. en yaa ngi doon léegi Barthélémy Diaz. quelque chose s'est passé devant sa mairie. occasionné par des gens yoo xam ne dañ leen fayoon on appelle des nervis faut faire la différence entre nervis ak agent de sécurité mm-hmm. agent de sécurité y a une loi bu koy prévoir pour garder sa sécurité la ils sont défensifs nervis c'est des gens qui ont reçu des instructions pour def lu bon lu baaxul pour attaquer mm-hmm. tant que tu es privé tu as droit à de la sécurité mm-hmm. mais quand tu deviens le chef de l'État sécurité bi day dañ relais bi GIGN jël collage la gendarmerie les privés n'ont plus leur place là-bas mais qu'est-ce qu'on vu dama ne ba mu ñuy dem kër Pape Barthélémy Diaz en 2011 ànd ak Macky Sall mi ngi sol lu weex maa ngi taxaw ak côté parce que kenn mosu ko gis mu gis ñu ma si côté bi mais dafa ñëw ne sénégalais yëpp feu Ndiaga Diouf maa ngi jaale sa famille lu ma fa jëlee Barthélémy Diaz a raison de sa protéger et tout cela soutien mm-hmm. parce que les nervis am n'ont pas leur place ci yooyu mais lan la ñu gis le février ak euh, mars de mille vingt et des nervis di topp di daw si mbedd yi yore sax des armes di tirer sur les gens di taper sur les gens des élèves yu ñuy bastonner les images on les a. te bu ñu paree seen liggéey ci biir permanence après la ñu dem dugg j'ai les images. ah oui. oui je pèse mes mots ku ko ñu dem. li ngay wax lay wax lu leer laa la wax. j'ai des images. te ñoom ñu taxaw dindi ko mettre ne ñu ay nervi ñooñu. j'ai attention su leen neexee ñu ne gisuñu jant bi. Eh. quand on le montre le ñu ni sama baaraam bi. Hmm. dama ne j'ai les images filmées bu ñu paree dugg ci pickup bi dugg ci biir permanence bi. c'est écrit permanence ñuy dugg ñoom ñëpp pour li ñu daje. permanence APR wala ci. permanence APR terminant sa moom laa gën a des images très claires on a d'autres hein, des véhicules yoo au ministère de l'éducation nationale wala mm. l'enseignement supérieur wala. il a démontré on tout dëkk bii lañ dëkk. Mm-hmm. kooku li nga doon bañ daaw nga koy jëf condamné ko di ko def man damay naan attention parce que loolu. ça s'appelle des tontons macoutes à la version Jolof Jolof. <laughs> mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui non non gis gis nga léegi dama bëgg dama bëgg a je ne suis pas un donneur de leçons mais li may wax kenn ko dindi te du ma tooñ du ma wax lu ñaaw léegi condamné nga li amoon muy nervi yi mais avant nervi aussi am na lu fi amoon muy mars yaa ngi ko tudd léegi mu am manifestation mu dem ba am ay débordement ñu lakk ci ay këru jàmbur yàq ci aussi ay biens publics. lépp loo xam ne yàq la il faut le condamner. c' est pourquoi le code pénal xam naa da nga ci dugg sur les réformes de mm, mm. lépp loo xam ne yàq la je condamne. dama ne set loolu dama bëgg mu leer yaa ngi wax deux euh, cas de nervi yi loolu mars la woon février mars mais quest la tournée du président de la République des yoonu Kaffrine yoonu Fouta. quand même. il suffit de se mettre en rouge ou bien de dire je ne suis pas d'accord balaa président sax intervenir di calmer wala on te tabasse damay condamner le fait que le chef de l'État qui n'est plus un privé mais une institution GIGN war a jël affaire bi en main ñuy permettre a privé di assurer sa sécurité di tabasser les gens des gendarmerie di leen naan bu leen leen laal j'ai vu ces images aussi vous les avez vues. le président est là Où est-ce qu'on veut les amener aussi dans le recrutement de la gendarmerie démentir nañu loolu maître nee nañu ñu ay nervi bu ñu sukkandikoo ci les proches collaborateurs du président de la République. je dis les gens disent que ce sont des militants am na ne woon amul. j'ai fait une émission avec mon frère Abdou mm-hmm. devant Pam Ngay. ma waxee li sa nervi la mënuma non ñooñu c'est pas gis ko amul mais léegi kenn mënul wax ne amul. des gens même sont sortis pour dire mais dama ne boo nekkee un homme un militant un sympathisant mu mujj sax ñu recruter dans la gendarmerie parce que le projet est en cours ngay sol tenue gendarmerie alors que tu partisan mais des dégâts sont là. sur la euh, maître, la procédure maître maître yooyu ce sont des choses yoo xam ni man d'accord ma ci. alors te on sait pertinemment que c'est l'État c'est euh, au niveau de la du président. maintenant maître euh, bi parce que yow ak le président Macky Sall nee nga moom moo la ñëw gis la. ànd ak yow ci Macky 2012 ba ñu dem coalition Benno Bokk Yaakaar dem élection demaat élection présentement quelle est la nature de vos relations yow ak moom au-delà politique bi ak li ngeen seqoon yoon yéen ñaar. depuis ma jógee Dakar dem dikk déggatuma ko. décès bi nga fi am yàggul et tout. oui c'est vrai que j'ai perdu mon épouse le 3 avril dernier. perdre sa épouse du perdre sa yaay du perdre sa papa c'est pas la même chose. ki nga xam ni si ñi la gën a jege parce que tu es devenu un homme. le fait que jaale si wu ma ça m'a fait ni chaud ni froid. jaale si wu la le président de la république Macky Sall. pourtant ñu ngi dem di jàlla ñeneen te man li ma ko defal ñooñu defaluñ ko man dama toogoon di xeex contre ñooñu. Hmm. pour que moom mu toog. On parlait de Khalifa Sall mais mu dem jàll ji. entre autres Khalifa c'est des frères entre autres. mu ne ñeneen ak ñeneen. du que d'habitude gis nañ président mu am ay yoo xam ne dañuy jékki-jékki rek jël benn temps. xam nga jàll du uniquement physique. Euh, dama ne. Mhm. le fait que jàll wu moom. métti wu am na la métti. mais vous savez sama soxna bi ma perte c'était pas n'importe qui pour moi. Mhm. c'est la raison pour laquelle depuis boobu kenn déggu c'est la première émission que je fais. Mhm. tout à fait. Mhm. gis nga jaa gis nga loolu mooy wane du politique rek. c'est quoi ça te fait mal ni nga koy waxee nii. gis nga euh, njiit euh, du wax fait mal le président Roosevelt newoon na. la place du cœur d'un homme d'État c'est pas dans la poitrine c'est pas sa place c'est dans le cerveau. il faut pas être rancunier. dama